المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين أما بعد أيها الإخوة المشاهدون السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته بكي باخو توب سنيو ديني بلين دي نيول تي وقتو الخميس بو جوت ريبيت تي اجوما جي سين ويجور دي سنيو ويجور نيون professeur docteur Omar Dia baxo di ñuko defal ci lañu delu ci wa tay di len dalal Jam, di ñaan sunu borom subhanahu wa taala mu dimbalé ñu gaayit ñu ba fep fu ñu teg suñu tank mu depo ak bëgg-bëggam di ñaan mom mu mussel ñu ci lamagne wu tarfati lamagne wu wax lu bokut ak bëgg-bëggam ak yene bu tilim ñu ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala mu musal ñu ci yooyu yëpp eh, bokk yi su ngeen fàttalikoo nag ci suñu jotaay bi paase góor gi mu ngi ubbi woon bunt bu am solo moo doon bunt li ñoo tuddee sécularisme mu nekk kàddu goo xam ne comme ni ñu ko waxee ca tàmbali ba lu tasaaroo la ci àddina bi te ci jamono bi ñuy dund nga xam ne ñu ngi dund ci globalisation amul benn gox benn place ci àddina bi boo xam ne dinañ la mun a jukki nga nekk an island di dund sa dundi bopp liy dox ci àddina bi bu la neexee bu la naqaree forcé mu pénétrer dugg ci sa biir néeg mu mel ni nag dafa war nit ñi nga xam ne rabbani yuun lañ mooy ñi nga xam ne yàlla moo leen yitteel jéema maintenance tabax bi fi yàlla tabax ñu war koo raaxaat pentuur ko ba mu rafet fexe ba xàllaat yoon wi ba bépp tilim boo xam ne nekkoon na ci ñu mën cee jaar ñu nekk nag ñuy liggéeyal réew di liggéeyalit it diine di liggéeyal doomu aadama ak fu mu mën a nekk waaye di liggéeyal bépp mbindeef boo xam ne yàlla moo ko bind nekk ci kaw suuf dara du ñu yitteel lu dul gis ne bëgg-bëggu yàlla ci nim ko bëggee ci lu nekk ci lu bind mu ngi doxee noona li waral loolu li ko ronu mooy gëm ne loolu rek mooy mën a tax àddina bi nekk ci jàmm nekk ci dal mooy tax àddina bi mën a dem ci kanam léegoo léeg nag from time to time mu am ay ideologies expressions ay waxin yoo xam ne day jóg di tasaaroo ñenn ñi di xam nammuteef bi ñem ñenn ñi duñu ko xam léegoo léeg comme ni ñu ko xamee ne ñaari kuréel ñoo fi nekk benn bi moo am te mooy cosaan te mooy dëgg beneen bi kuréelu fen la mooy xisbu rahman ak xisbu cheytaan ñoom ñaar ñoo fi ne benn bu ci ne da nga am say militant yoo xam ne ñu ngi lay liggéeyal pour gis ne sa programme mu ngi mën a dem ci kanam mu war nag nit ñi nga xam ne rabbaani yoon lañ ñi xam yoon wi yàlla tëral ak bëgg-bëggu yàlla ci jaam yi mu war leen fu ñu toll ñuy delluwaat gannaaw ci kàddu yooyoog xelaat yooyoog idéologies yooyu di seet ndax dëppoo na ak bëgg-bëgg suñu borom di seet lan lay jëriñ doomu aadama ak lan la koy yàq góor gi defe naa ne ci suñu programme bi comme ni ñu ko waxee waxoon nañu loolu ñuy tuddee sécularisme baat boobu fan la jógee maanaam literally eh, wax nga ci wax ju yaatu fa tabaarakallaahu wan nga ñu ne sax ni ko arab tuddee euh, du tur woo xam ne dañ ko waroon a jàpp di ko jëfandikoo ndax almaaniya la ñu ko tuddee te almaaniya ñu ngi ko jëlee ci ilm te wax nga ne ilmu melow yàlla la te melow yàlla lépp dafay baax ni ñu waroon a def daal mooy nañ jëlee tur bi ci ni ñu ko déggee mooy sécularisme loolu nag lu am solo la te foog naa ne nit ñu bëri dégg nañu ko te apprécier nañu ko waxoon nga ñu ci suñu jotaay bi passé euh, naka la duggee naka la duggee ci biir yaramu lislaam ne ñu ngi ko njëkk a fàttaliku ci jamono Kamal Ataturk ca tooki eh, ci bunt boobu la duggee woon ci yaramu lislaam waaye góor gi li ma gëm mooy balaaw moo dugg ci yaramu lislaam ñàkkul ne lislaam am na fuñ ko donnee eh, parce que ñaare façon yu demee noonu toujours Europe ak Amérique ñoo ci dee jiitu lislaam ba tax na déglukat yi am nañ bëgg-bëgg pour nga delloo leen gannaaw tuuti eh, nen balaa ko balaa ko Kamal Ataturk di doon na fan la ko doon ne loolu lu am solo la pour ñu dégg ko tey suñu ko déggee ba pare nag ñu door a dem nag ci njeexital yi nga xam ne suñu demee ba def ko loo ci any state yan njeexital lay def ca ñi nga xam ne ñoo dëkkee réew mooma kon ñu ñaanal la suñ borom subhanahu wa mu ubbi seen dënn tàllal saw làmmeñ barkeel li nga xam ne mooy génn ci yow waaye di ñaan yàlla it ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan tey déglu lépp luñ fi dëgg rek yàlla dimbale ñu ba ñu man koo denc te man koo jëfandikoo mu mën a am réflexion boo xam ne dafa positive ci suñu diine ak ni nga xamee ne noonu lañuy doxalee réew eh, loolu lañ doon ubbee jotaay bi góor bisimilah <coughs> asalaamaaleykum salaam wa rahmatullahi yéen ñi ñuy déglu di ñu seetaan ñu ko tàmbale woon bu yàgg rek mooy tey mu delloo ci ne allahumma la ilma lana illa ma allamtana ay naam allimna ma yanfauna wa zidna ilman amin ya rab ñu ngi ñaan yàlla gi nga xam ne lépp lu nit xam moo la ko xamal ñu dalee ko nag الا ما اسمع الا ما اسمع اسمع, أسمع كلها نعم اي نعم يلا اها باخم اها تبيم اها خيرين اها اكيك مام اها ينجي ترل ينجي ترل نعم كو كو بوغا دينغ اها بلا كي اها سو دي مزور في بقره اها من يلا اها أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak malaaka yi nga xam ne ñoom ñooy nooraani yee ñi yàlla ndeysaan dañ xam ne li yàlla bind lépp leer la lu baax la wallaay wallaay ndeysaan ñu ragal nag ne gannaaw nag leer ñu nekk soo ci dugalee lu dul leer danga ko yàq wax dëgg yàlla ñu ne ko ndax danga fii def koo xam ne dafay yàq wax dëgg di tëri di tuur dere eh, deret eh, eh. te ñun dey li ñu bindee ñu teg fa lañ teg suñ taxaw wax dëgg yàlla Ousmane loolu danaa ci wax tuuti ci xam-xam dana ci am solo bu baax a baax waaw parce que xam-xam dañu wax ne xam benn hmm. angale ah, maanaam tàmbali ko ci anglais ñu dégg ci gën a bëri dañ bëgg xam ñoo ne dañ wax ñu proper knowledge wow improper knowledge ah proper knowledge improper knowledge xam nga proper knowledge lan la déedéet ma jox la beneen boo xam Muhammad naq Mouhamad Naqibul Attaas mhm. ki nga doon founder and director of the institute of Islamic Thought and Civilization fa jàngale naa fa juróom-ñaari at. macha allah ci Malaysia. Malaysia. Uh-huh. ni mu ko defee mu ne. Uh-huh. is a recognition. Uh-huh. acknowledgement. of proper place of things. in the order of creation. est-ce que say it again. acknowledgement. acknowledgement. recognition. recognition. acknowledgement. and acknowledgement. of proper mu ne. fantastique loolu ñii li yàlla bind. Hmm. li yàlla bind ku ci nekk. daf hmm. la jox proper place bu mu la teg. ankay mooy daf la teg fa la war a teg. foog war a boobu mooy xikma ma lam la sant. Mm-hmm. te lim la sant foofu nga ko mën a defee. Mm. Ah, nga ko war a defee. lim <laughs> nga ko mën a defee. ah kay. mu ne nag. Ah. ndeke order of creation. Ah. mooy li yàlla créé. waaye am lu ko lamb. mooy order of existence. order of creation. mooy mbindeef yi. li ko lamb mooy ordre of existence. existence moo ko jiitu puisque moo ko fi indi. Ah. mu ne na ak knowledge recognition. ak of proper of God. of Allah. in the order of existence. xaar ñu dem nag jéem ko firi ci wàllu. waaw. Mouhamad Naqib El Attaas. Mm-hmm. nga xam ne mooy di professeur. Mm-hmm. of Islamic Thought and Civilization. foofu laa doon liggéey. hankay. mu ne. xam-xam bu wér. pro proper knowledge. proper knowledge waaw. mooy ilmul yaqin yi. waaw mooy ilmul yaqin waaw. ilmul yaqin. waaw mooy proper knowledge. laa yuxni min alxaqi shay'a. lu dul yaqin zan la. zan la wallaay. improper la. hankay. proper knowledge. Ah, ah. mooy yaqiini. Ah, mooy ilmul yaqiin mooy zann. bépp xalaat boo xam ne doomu aadama moo ko xalaat. am mu ko mën a xalaat yëpp zann la mu ko mën a xalaat yi zann lay doon. wallaay loolooy dëgg loolu mooy dëgg. pour ñu firi lan loolu nag. ci anglais bi maanaam zann mooy njort. mooy njort. Mm-hmm. njort mën na nekk lu nekk nag. ahankay. dégg nga. Mm-hmm. mu ne. kii la recognition. recognition. acknowledgement suñ ne dafa recognize ko. suñ ne daf ko recognize. daf ko daf ko daf ko nangu. daf ko nangu waaw. nangu ko acknowledgement. mooy daf ko propre daf ko daf ko liggéey. xam nga da ngaa tàmbali. ci. Ah, recognition wa recognition ba pare ak no lañ knowledge door ñew no lañ mo mooy dañ koy liggéeyee ah jëfé dang koy jëfé dang koy nangu ba pare jëfé ko hmm ku nag ci lepp lo xam mu ngi ci adina bi tay hmm lepp lu yalla bindé hmm dafa am fu ko bindé nu ko bindé ak fu mu ko teg ah, kay ku ci nek hmm moy né li wolof di wax né hmm wacc saw and and wo waaw loloy deug sëñ Maska mu ne. danga nga du toog sax ci am dafa jirim waaw waaw. <laughs> mu ne ku wàtt wàtt saw fekk. borom toog ca looloy dëgg. lii la bu atas bu ko wane ne. Uh-huh. ndeke. Uh-huh. order of creation. Uh-huh. li ñuy dund système bi fi nekk. nisaam bi fi nekk. doxaleen la ñuy tagal. mooy order. of creation. ni yàlla taralee. Hmm, order of la buggee mooy order bi. tëralinu tëralinu mbinde tëralinu binde. tëralinu bindag mbindeef yi. waaw tëralinu mbindeef yi. Ah. bindug mbindeef yi. tëralinu bindag mbindeef waaw. Ah. Mhm. léegi nag su fekkee da nga dem nag ci yàlla ci boppam. Hmm. kooku dafa génn ci order of creation. Ah, order of existence. Hmm. mu ne buuba nag. Hmm. yàlla dafa am pilis boo xam ne out of existence. Hmm. kooku nag. Ah. moom la Muhammad Ahmad. Hmm. Ahmad ah, Ahmad Hafiz. waaw Muhammad Hafiz. Muhammad Hafiz Tidjani. bu Tidjani bu bu Égypte. waaw. mu ne boobu mooy lan. infiraadu bi wujudil mutlaq. ah wéet gi mu wéetoo nekk. nekk nekk nekk gu mutlaq. it is is uh-huh. unique. Uh-huh. Uh-huh. existence existence. existence. Mm-hmm. unique. Mm-hmm. absolute. absolute existence. existence. kooku oh, yàlla ko mm-hmm. yore. ku dul yàlla boobu. waaw amu ko. su ko defee nag képp ku sa existence mm-hmm. is dafa da ngaa ci existence sanam moom yàlla. waaw Moussa si dañ ko mu xayyar la ñuy waaw ñu ne limited. limited existence. Uh-huh. mooy am jamono nekkoo fi. waaw. nga ñëw ko fi nekk googu la dafa am limite. góor gi even sax bi nga melee ni da fi nekk nekkoo fi. déedéet ci nekk ak moom nga. waa waaw. <laughs> xam nga li ñoo waaw waaw ci ibnu arabi ahankay waaw nit ñi dégguñ ko ahankay di ci yéefaarloo ñeen ñi léegi eh, eh. bi ma nekkee Malaysia eh, am na fa ku ma gis koo xam ne is a astrophysicist astrophysicist la waaw dégg moom mooy lan astrophysiciste mooy ñaq seen xam-xam màcc jëm ci mooy seen physique lañ am boo xam ne dafa làmb àddina bi yëpp. Ah, ok. Mhm. kooku mu ne. Hmm. soo gisee ñiy wax affaire existence bi. Hmm. Hmm. ne dafa am limite dafa am lani. mu ne. ibnu arabi juumut. bi mu ne wuxdatul wujud. xam nga wuxdatul wujud ci soo ko soo ko firee ci wolof mooy la Ousmane. mooy. Eh, E, kennuk nekk gi mooy kennuk nekk gi mu ne liñ juumee dafa am lu ñuy wax wuudatu suhóot ak wusudatu wujud duñ benn ah, waaw waaw suhóot bi mooy ñim mhm. ah, moom daal mooy mooy mawjud waaw léegi nag mhm. ci wóotatul wujjootam boobule mhm. mu bind benn benn benn téere ñu mhm. ngi ko waa Mouhamad Mahadi mhm. bi may jàngale Malaisie ak ñoo daan bokk di liggéey am juróom-ñaari at mu bind téere ci anglais def ko unified theory of existence mm. unified theory of existence ah unified mooy nazariyatu unified theory. of existence. waaw mooy. nazariyatu wa waaw nazariyatu wahdatul wujud. waaw nazariyatu wahda. waaye nag jàngale unified theory. mooy nazariyatu mu mu mu waxaat. ah nazariyatu waaw. unified theory. existence ah waaw waaw. soo mhm. demee ci existence fi mu nekk nii. dëgg-dëgg. soo ci génnee yàlla. nit ñi am nañ ñu bokkoo nuñ dimbalante. da ci fiy nekk tey ëllëg doo nekk. kay. da man dara. ëllëg waaw waaye nag suñ demee ci. infiraadu bi wujudil mutlaq. he is unique. unique. existence. is unique is unique. perfect. Uh-huh. existence. existence yes. kon na fi mu nekk nii lépp loo xam ne xam-xam la uh-huh. te route propre nu lay hmm. nga xam ne hmm. da nga yëg ne li fi nekk hmm. ku fi nekk lu fi nekk dafa am ku la fi indi am fu mu la teg am fu la sant est que kër boo génnee ci daayira boobu too defati bu yàqu wallaahi wallaahi wax nga dëgg de loolu daal soo ciy génn rek mënatuloo tabax dara mu taxaw mënatoo def lu baax parce que li ngay def yëpp i naka improper knowledge la moo doon waaw ilmu zanni ilmu nañ koo yaatal mu àgg ci ilmul aqida aqida bu yàqu ahan kay ahan kay xam nga inna diina inda la al islam islam ni ñu ko yàlla wane diine la dafa am arkaan ahan kay avant piles mhm. pile bu njëkk mooy iman mhm. beneen bi ci teg mooy islam beneen eh, saa ñii ñeent lañ woy yëpp benn la puisque li leen tënk yëpp mooy ihsaan mhm. anta bu mooy de mooy gis yàlla ci iman mooy natiija bi gis yàlla gis yàlla ci marifata hankay gis yàlla ci mbindeef yi gis yàlla yàlla ci mbindeef yi léegi nag mhm. bi nga xam ne moom de waaye góor gi may ma ma lajj tuuti de parce que laal nga loo xam ne léegi ilmu bi ilmu ak maarifa eh. dama ci bëggoon a parce que waaw soko ko mhm. suñu waxtaan bi passé. waaw nañ ci maarifa. Mhm. alaarif bi laay laaj nga ba loolu. waaw waaw. Mhm. léegi elm mooy lepp lo xam dañ la ko jangal téré la mm, bo jàng elm dañ koy jang waaw. téré la bo jang wala nga xam kay. sëriñ la bu la ko jangal wala oustad bu la ko jàngal. Mm. wala imam bu la ko wax moy moy elm. maarifa nak mom elmu laduni duni la. maarifa mooy ci tubaab moo gën a yomb wax ah ok waaye ci arab itam ñu koy wax waaye leerul ci bopp nit ñi maarifa su demee ci yonent bi la mooy wax yi ah, ok waaw xam-xamu yonent ah, maarifa la parce que elmu la du ci yàlla la jóge daara ñëw ci moom mhm. su fekkee waliyu la mhm. wala nit ku baax la mhm. wala du lool sax walla scientist la kooku ñu ngi koy wax ilham ilham mooy intuition in english intuition intuition duñ koy bind ci téere déedéet Albert Einstein Einstein ku ku ko dugg ñi nga xam ne lan la Albert Einstein danaa ñëw ci ci ok am na benn mbooloo moo xam ne. Mhm. ñoo togg sécularisme. Mhm. ak ñor mhm. moom ci la bokkoon. aywa ci moom. waaw ah bi most revealing inspiration bi ma am. man kong when my mind. is the lowest level of activity. Hmm. Mm-hmm. xam nga moom mooy the architecture of relativity. Nisbiya. Mm-hmm. Mm-hmm. mu ne. bi ma koy am. Mm. bi ma am li ma am tey nga xam ne fi mu nekk nii tey. addiye bi ñu ngi ciy wax. Mm. mu ne ba ma koy am. Mm. booba maay maay. suma xel mi mu ngi ci lowes di di uh-huh. li gën a suufee li gën a suufee ci activité xel be dafa liggéeyee xel mi xel mi xel mi mënatul dara mu noppalu yàlla wan ko loolu la est <laughs> mu dellu fa mu tàmbalee woon waaw mooy fi mu nekk nii Newton uh-huh. Isaac Newton képp koo xam ne gis nga li ñuy wax fi mu nekk nii mhm. Newton moo ko feeñal. yes Newton daf doon research. Newton Newton du mooy kii ci ah, mbiru électricité. Ah, anglais ah, la anglais la. waaw. xam nga fu mu ko jëlee. ne fi mu nekk dafa am gravité. am fa am foo xam ne soo fa àggee. waaw fi mu nekk nii gravité dootu fa am. waaw. mu ne lim ko wan dafa toog benn bés benn apple rot. Euh, xam-xamam feeñ na ci électricité. waaw waaye ci courant nii mhm. apple bi rot. Mhm. apple bi muy rot yàgg na. Mhm. thousands of thousands yàgg apple la ngi rot. waaye kenn xamul ci secret bi bu mooy lan. mu ne bi mu gisee apple bi rot rek ci léegi ne gravité nag dafa am lu ko xëcc. Euh, dafa am jaasibiya. kooku mooy intuition. Mhm. dégg nga. Mhm. maarifa. Mhm. koy joxe. est-ce ma jox beneen. exemple balaa ñëw dugg ci li war dugg tuuti. dama gis ci Foraya ca fan yële. benn Gambien boo xam ne mu ngi tudd Kéba euh, naka lañ koy tuddee ci waaye dafa naa de. Mhm. Ah, ah, Mambouré. ah Kéba su fekkee mu ngi ñuy déglu. waaw ah. nañuy correctal tur bi. <coughs> mu ne success. Hmm. moom la ñëpp bëgg. Hmm. xam nga success mooy lan ci wolof. success mooy najaa. mooy arab. mooy. daal sotti. mooy. succès daal. mooy matal. matal waaw. sottal wala matal waaye dégg ko fu mu nekk. même Ali Faye mii. Mhm. soo ko ne lan mhm. mhm. mu ne succès. is a God giving gift. ah mayuk yàlla la. yàlla la. a amut. tey sa xam-xam doo ko may. ngóor a amut bon. am na ñoo am xam-xam te mënuñu am succès. ah kay. c'est wax na dëgg. mu ne kon nag. nañ dellu ci yàlla. man maay firi de. raayta bi moo wax lool. waaw raayta waxut nañ dellu ci yàlla de. waaye ba ma déggee mu ne God. ah bon nag. bon ko comme la bu jógee ci God kay nañ dellu ci ki koy ki koy joxe. mbir mu ne soo ko buggee da dem ca ka ko amee mu jox la ko. mu teg ca mu ne. Mhm. suñ problème mooy. mu mhm. ñuy wax dañ ñàkk li ñuy wax selflessness. Mhm. selfless ñun dañ ah, waaw. di di di di the opposite self. Uh-huh. selfish ah, waaw. mu ne suñ buggee am. self sustain ko dañoo ah. jikkoo selflessness altruism ah, selflessness est-ce que est-ce que waaye ba ko gisee rek mu delloo ma ci yàlla nag est-ce que ku am selflessness des ah. mooy ki nga xam ne mooy koo xam ne yàlla rek nga gis ku bëgg mhm. loo bëgg loo bëgg li neex yàlla wallaahi ku gis yàlla rek dootoo amati self da ngaa selflessness. selflessness. dégg mhm. selfishati. dégg nga mhm. dajati sa bopp. dootoo buggee. Mhm. dootoo ñi soxor. dootoo nay. déedéet. lépp lu fi nekk. da nga ko bëgg a dee doo bëgguloo sa bopp. déedéet. xam nga selflessness. opposite am. mooy selfish. c'est que le matérialisme. philosophe am mooy secular materialism. selflessness wala selfish. selfless selfish selfish. selfish aha. non selflessness opposite am. ah opposite am mooy selfish. secular materialism philosophically. Ah, secular materialism déedéet. séculaire mooy fas sa diine bu si diine mooy mooy séculaire. Ah. mooy bëgg sa bopp. bëgg alal. bëgg daraja maanaam yow da waaw waaw gisoo kenn ku may yow. waaw mooy matérialisme. philosophie yi nga xam ñu ngi ko liggéeyee. ñu ngi ko ñu ngi ko ñu tënk ci leneen lu ñuy wax utilitarianism utilitarianism. Ah. maximize. your profit minimize your losses. Mhm. your profit mooy la. profit mooy tono tono. yëkkati ko waaw. yaatal <laughs> waaye nag loo xam ne loosis la. loosis la bul faale nag waaw. sa yoon bu mu si ñoom yoon na nga am. yoon na am rek. ak noo mën a amee. <laughs> lépp loo xam ne dafa indi nag ak loosis. ñoom da nga ko minimiser. ah fexe waaw. da waaw. dégg mooy li nga xam ne moo ñuy dugal ji lañ bëgg a wax si li taxoon ma ne la mhm. sécularisme mhm. gan la ci lislaam ahan kay dëkku ko fi indi dëkku fi de dëkku fi de waaye from the seventeenth century up to nineteenth century waaw moo doon dox ci Europe ah ok li ah. Christian churches mhm. dañ bokkoon soo demee balaa révolution xew Amérique wala. France boobu cooj bi ak Monake bi ñoo àndoon di liggéey. kay. muy nekk loo xam ne amuñu woon intérêt si people si. Hmm. dañoo selfish dafa am selfish daal moo am. am na bu ci xew. mooy di beginning of protestantism. kooku mënuñ cee wax. waaye ne protestant. dañ révolte against. Ah, di catholicisme bi ak waaw. Mhm. Mhm. waaw li ko def mooy ne. Mhm. dafa amoon yoo xam ne e, bëgguma cee dugg léegi. waaw Christians. ahankay dogma. ahankay. kooku aw ma autorité. waaw definitely waaw. waaye lu mën a xew. bi nga xamee ni réero bi xew na. dafa amoon intellectuel ñi mhm. nga xam ne dañ jàng te xam mhm. waaw mu daje ci daag aegis mhm. Europe ñu ne xam nañ ko daag aegis fatra fatra fatratu zalaam wala zulmaniya wala mooy mooy jamono lëndëm bi lëndëm bi lëndëm boobu lee dañuy fexe ñoom ci seen gës-gës gis-gis ak gëstu mu indi li ñuy wax enlightenment period enlightenment period li mhm. Mhm. mooy seen buxaaba yi mhm. seen borom xam-xam seen gëstu yi dafa am jokkoo gu jokkoo nag muslim si ci Andalus mm. ak Abu Hamid al Ghazali am na benn article boo xam ni am na ñu ma ko ko jox bu waaw. Abu Hamid al-Ghazali bu mag. waaw mhm. dafa challenge Aristotle. ci question. Mhm. of the existence world. Mhm. Aristotle dafa gisoon ne. li fi nekk. moo fi ah. te dara du ci dara du ci wécceeku. Ah. waaw. Aristotle views moom Christian Church dañ ko adopté. nañ ko adopté woon. dañ ko adopté. artifacts that Christian John monotheism. Uh-huh. waaye bi Aristotle indi ay politique am. Mm-hmm. ñoom dañ ko adopté. Mm-hmm. mooy eternality of the world. Mm-hmm. mooy is eternal. amul beginning amul end. ending dara du ci soppeeku. ها وهم Aristotelian concept of existence واو بول أبو حامد اه بمن بنيو اه بيانغال القرآن مباح اه yëg ne déedéet li fi nekk dañ ko fi def. waaw moom la xel. parce que foo dem ci alxuraan. xalq. laa xalaqakum. yow jàng nga alxuraan. wala xalaqakum. wa ma taamaloon. xalaqa samawaati wal ard. Mm-hmm, mm-hmm. xalaqa xalu fi butooni ummahatikum laa taalamuuna cheyan naam. Abu Hamid mu ne. Mm-hmm. doctrine of creation moom lañ war a gis. Mm. the doctrine of eternality. of eternity. eternality. ah eternality waaw. eternality mooy. li fi nekk. moo fi def boppam. Ah. ñu ne. li xew mooy. leafy neck mm. coming into being of things mm. out, each, out of each other, revolving according to its own law. Mm. Coming into being of things. Ah, coming out of being other, of things. Wow. Out of each other. Out of each other. Revolving. Revolving. According. According. To its own law. To its own law. Ah. eternality. Um. Leafy neck. Ah, ah. mooy li ñuy wax évolution. évolution. li ñuy dafa jógee kii. kii joge fii kii jógee fii. kii dem ci nii waaye nag. ruul bi nga xam ne moo leen yore ñoom ñoo ko waxee. Ah. xale bi. abo kii abo. abo Hamid El Ghazali. ni ko challenge. Mhm. ni mu ko challenge. Mhm. mooy philosophie bi nga xam ne moo doon dox tey. Mhm. nga xam ne même Mussolini philosophos waaw jéemuñ ko challenge Ibn Sina ak Kinde Avicenna Ibn Rushdi mm-hmm. challenge ñu ko waaye ba Ahmadu Xaamis ñëwee daf ne mm-hmm. damay jàng philosophie mm-hmm. ba xam ko ba déggoo philosophie ñu ne lii mooy philosophie mu def ba xasida falaasifa moom la njëkk a bind maqaasidul falaasifa objectif au philosophie mhm. téere la bu doy waar boo xam ne ñu ngi mhm. bind arab yi gisaguma ko mhm. maqaasidul falaasifa gisaguma ko ba mu ko joxee ba philosophie yëpp ni nii la mu teg ci taxafudul falaasifa taxafut <laughs> <laughs> bañ demee ba ne maqaasi bi. I like it to have it out. with inconsistency. Uh-huh. of uh, philosophers yes. su la wanee nag li xew mooy doctrine of creation. Uh. Uh-huh, bu nekk uh. creation ex ex nihila. Uh-huh. ex nihila mooy creation from nothing. Ah. So Girigan you ah. create next in the hill. Uh-huh. My creation from nothing. From nothing. Koku scientist, uh-huh. i uh-huh. maningo dig. Did it. It's the being of things out of each other. Ah. mole wane lu fi nek rek. Wax dëgg fu mu soso. Wax dëgg yàlla ñoom sax dañoo xaw a ñoradi de góor gi waaye soo lii fii la jógee lii lii mu jur li mu jur lii waaye fi mu jógee nag. buñ ko wax. fa mu jógee maanaam lii fii la jógee waaye. xam nga doom ji waaye ndey ji nag. dafa am benn benn muslim. muslim. alim arif billah. mu ne. c'est concept of causality sababiya. lii mooy sababiya. lépp lu am dafa sabab. wax dëgg yàlla. dégg nga. waaye sababiya. soo ko toppee. soo ci génnee ah, danay am musabbib. waaw mu musabbib boobu lañ. lañ nangu huta la bugg a am. <laughs> bugguñ mu existe. xam nga sabbib ba duñ ko tuddee. musabbib ba duñ ko on cost the cost. Ah. sabab ñi feyaawuñ ba kile huñ amuñ consistance ci seen. amuñ proper waaw waaw waaw. amuñ proper knowledge. ahan kay. ñu ne. causality uh-huh. fi mu nekk nii di uh-huh. causality Muhammad kii Ousmane uh-huh. is the cornerstone of scientific research hmm. cornerstone of scientific research it's a pillar of scientific research lépp rek foog mu am foog mu am foog mu am wax dëgg yàlla wax dëgg yàlla waaye nag foofu fa mu jógee duñ ko wax est-ce que benn waay te ñoo sorenda rek benn very erudite thinkers. Mm-hmm. dafa fàtte turam waaye christian la sax du jullit. Mm-hmm. mu mm-hmm. mu ne soo demee ci xalaati waxi xam-xami Abu Hamid. ki nga xam ne mu ngi ko tuddee ci Qur'an. daf ne. causaal cause amut. Ah. déedéet cause création moo am. Uh-huh. duut yëf yi dafa jóge fii jaar fii jaar fii jaar fii déedéet. Hmm, hmm. mën na am nag. Hmm. ci création of doomu aadama ci biir neex. xalaat naa ko min turaabin. suma minut fatin. soo mi naa la xatin. suma minut xatin muxallaqatin wa xayru yii ay stage la yoo xam ne. création daf ciy jaar. moom la ñuy wax progressive. development. of creation. material element through. stagis ah. mbir la moo xam ne dafaa ñëw la di seen mooy benn création bi rek waaw la waaw marahal mhm. kii mhm. dafa am ku ko téye mooy yàlla mhm. mu causality is an idea imposed on human mind to avoid mm-hmm. infinite regression. boobu ñuy dégg di ki uh, english language of mu money. Mm-hmm. causality. Mm-hmm. is an alien. Mm-hmm. idea. It's an alien idea. mooy idea boo xam dafa tumuraanke. xalaat bu tumuraanke la. impose on human. waaye euh, ñu ñu ñu xalaatu doomu aadama. to mu ma mu moytu. mu mën a moytu ah. ñu moytu. Uh-huh. infinite moytu. Uh-huh. sababu amul sabab. Ah. <laughs> pour ñu sabab bu amul sabab maanaam waaye te fekk sabab boo amul sabab ñoom dañu bugg a saxal ne lu am la. Ah. <laughs> subhanallah ñu ah. wala ñu on move du move ah. li fi nekk yëpp dafay yëngatu. Ah. li yëngatu dafa am ku ko yëngat. Ah. waaw war moom la xel nangu. ñu ne ki ko yëngat nag kenn yëngatu <laughs> move du move ah. est-ce que. lii fi majal. propanol léegi nag ñu dem ci propanol bi bañ ko ñàkkee liñ fa def lim jur lim jur tey mooy sécule matérialisme mooy sécule matérialisme lan la cooj bi cooj bi biñ demee ba jaaxale dañ commission dañu wax cornale maa ngi am koro fii -huh. Cornelis van Persen. Uh-huh. Cornelis van Persen uh-huh. on the chair of uh-huh. philosophy in the University of Leiden. Mm-hmm. definitely in the 1825. Around. Mm -hmm. mm -hmm. Then go Mm -hmm mu study the proper problème bi nga xam ne mhm. moo ñëw ci Europe léegi mhm. ñu doon ko wax mhm. formulation of scientific conception of the world kooku moo formulation of scientific conception of the world dañ ko def muy against religious uh-huh. perceptions uh-huh. afduwa gi nga xam ne fi mu nekk mhm. moom la yoroon daan dund. Mhm. Mhm. révolution bi xew ci cooj bi. protestant yi xeet jiite ko waaw. ñi nga xam ne ñoo doon ñoo doon euh, leading. intellectuals. dégg nga. dañ formuloon benn groupe bu ñu Vienna Circle. Ah, Vienna Circle. University of Vienna, uh -huh. modern leading ah, university in Vienna Europe. Circle, ah, okay. Vienna Circle people, uh-huh. work out the idea of secularism mm. against the perception of the church. niñ ko gisee ñoom. church bi dañ ña dañ ñawoon problème mooy kon siifin bi woma mhm. moo naqi baadas moo ñu leer mu ne conceiving of the God, conceiving of God a super rational person. Mhm. mooy bi nga xam ne mooy scientist nangul. Mhm. nga gis yàlla. mu ñëwal la ci. super rational kooku. loolu lañ nanguwut moom lañ nanguwut a nangu. moom la scientifique yi ñi nga xam ne dañ bëggoon ne. Mhm. formulate a scientific conception of the world. Mhm. ñoo nanguwul loolu. Hmm. kon nag suñ ko nanguwut foog ñu indi xalaat. waaw forcé loo dàq rek danga nga am loo loo replace. xalaat bi nag mooy ne. cooj ci bopp mhm. commission. Ah, waa la tudd léegi. Mhm. Ah, mhm. Van Person. Mhm. moo doon professeur. di chair of philosophy in the University of Leiden. ci Holland. dañ ko ne. ñu jàngal lii. formulation. of the scientific concept of the world. ki nga xam ne is against. the teaching of the church. mënuñoo ànd. Mhm. dañu bëgg nga wan ne li mooy lan. ñu ah. am benn conférence bu ñu def. ci benn place bu ñu wax yu communical communical yu communical ba institut institut eh. fu ñoo bos bos in Switzerland. foofu lañ ko def conférence bi. Mhm. ñu ne ko dañu bëgg nga defal ñu définition. définition secularisme. Mhm. Hmm. Mune isi deliverance. déglu hmm. li ma lay wax de. waaw Cornales. Van Persie moo ko wax. orang du suma wax de. ahankay du waxi ataasi. ahankay mu deliverance. of man. force. from religious. second. from metaphysical control of his mind and his language. Wow. Ah. uh sécularisme liñ ci biin waaw maan human bi nga gore daal nga génne ko tënk ah. tënk diine daal da nga ciy génn dafay tinkeeku metaphysical control of his mind and his, his language <laughs> kooku soo ko bëggoo firi ci simple language English. Ah. wala Arabic. Ah. mooy free human mind from believing in unseen reality. Ah, free human mind. from believing from believing reality reality. lan mooy unseen reality. ah. kooku bi ci jiitu mooy yàlla. mooy. mooy mooy mooy ponki ngëm yi rek. rusuli. ah ahankay ñu ne nag da nga génne xalaati ko boole ci programme da ngay nekk daal maan daal dafay nekk an island waaw religious control ah. dañ ay lu dagan lu xaraam li àjjana safara waaw bu ko waxee bu ko jëfee bii mooy li xam ne moom la Europe dind subhanallah Is the key in is in atasmuna en is encompasses mm-hmm. lii mm-hmm. dafa làmb lépp loo xam ne xalaat la léegi ci Europe est-ce que muy philosophie ankay muy théologie mm-hmm. muy language muy muy politique muy politique even even economy e-, everything lépp loo xam ni fi mu nekk nii mu ngi dox ci Europe tey ci mm-hmm. àddina bi tey mm-hmm, mm-hmm. te Europe na gannaaw gi nag ñoo colonise di xool wool ankay bañ leen coloniser loolu lañ fa tëral ankay seen educational system c'est secular materialist educational system c'est materialist ñi yaru tey yaroo ci school yi déedéet déedéet yaru ci diine ji lañ yaru ci seen kër yi. ahankay. yaay ji ak baay ji dañuy am diine ragal yàlla. Mhm. dañuy am propre ñu yar leen ci xam ne lu fi nekk dafa am ku ko fi def. Mhm. ak lu mu ko defee am lu mu ko sant. ahankay. su ko deful. keneen dootu ko mën def. wallaahi wax nga dëgg loolu lay dëgg wallaahi. lii mooy li nga xam ne mooy sécular matérialisme. Mhm. léegi. yaa ngi may wax ne. amoon nga programme bu ñuy wax daara ji. waaw. daara ji am nañu. am naa ko kay note bu ba liggéeyee léegi fii. waaw. waaye daara ji li ma ci sawar loo mooy ne. Mhm. ndeke ñoom waxuñ su waxuñ école bi de. daara ji lañ wax waxuñ bi waaw lu tax ñu tànn turu daara ji. lu waaw. parce que yëg nañ ne li fi yàqu. Mhm. ñi jàngul ci daara ji. Euh. ñi amul tarbiya daal ñoo ko yàq. Ah. gis nga keroog bi ñuy wax affaire gi saa du ma dellu si waaye nag. waaye waxtu bi jeex na tàkk de góor gi. ma ci pour promouvoir gi saa. waaw waaye dafa wax ne. kër mhm. ma jàppee. li may ñaan yàlla. mooy mu ngi mel ni moom itam. yëg nga ne yàllaa fi ne. waaw kay di. li ma <laughs> koy ñaan bam ne su ma jàppee rek kay boo jàppee rek. li ma koy ñaan. boole mi si tawaab bi ni ñuy tuub. waaw. mu boole ma ci mutatahirin ak min ibadihi salihin mu boole ma ci ibadihi salihin loolu suñ ko amee eh, jeex na mu ne suñ ko amee tey tabax nga tabax nga nag eh, nit koo xam ne doo ko soxlaati ku ko enquête ah. waaw fa tabarakallah macha allahu taala góor gi xam naa ne nag eh, su ma neexee ma ne mosuma am waxtaanu ma neexee nii biñ staate biñ staate ba tey mosuma am bu ma neexee nii waaw parce que waxtaan bi góor gi eh, da nga dugg foo xam ne man dama ko niit maanaam lépp laa niit waaye mu ngi bokk ci li ma gën a niit ba pare ci not man rek waaye góor gi dafa am nit ñi seetaankat yi déglukat yi luñ laak xam nga soo seetloo ci suñ waxtaan yi passé waxoon naa la ne la programme bi li ko tax a jóg mooy xel yi dañoo gëlëm ruux yi dañoo mar. xol yi tilim léegi nag waxtaan yii mooy li nga xam ne dafay socc xel di socc xol di socc ruux te nit ñi góor gi nit ñi bugg a baax nga gis fii nii gis nga nit ñi nit ñi bugg a baax lañ dañoo amul ku leen dimbale nit ñi jullit lañ waaye amuñ dimbal ñi leen war a wax liñ leen di wax duñ leen ko wax léegi mbir yi moo yàqu ba tax na eh, xam naa ne neex na lool waaye danañu jéggalu seetaankat yi rek ñoo dog ba beneen jamono waaye ñuy ñaanal yàlla góor gi nga xam ne ci moom la ñuy nampee façon xelaat yu am solo yii wax dëgg yàlla yàlla yàggalal ñu ko ci suñu kanam ànd ak wér ànd ak tal fa tabaarakallaa ba ñu man di yàgg taataar xéewal yi nga xam ne mooy jógee ci moom eh, di ko ñaanal yàlla yi lépp lu mu def rek mu dolli ko ko leer dolli ko ko xabool ba pare barkeelal ko njabootam mu ba nga xam ne danañu mën a teg seen tànk fii nga xam ne foofu la teg tànkam ñun ñëpp itam nag man su ma waxee sax njaboot gi mooy képp koo xam ne rek bëgg nga lim bëgg ñëpp ci njaboot gi lañ ñun ñëpp yàlla gindi ñu ba teg ñu ci tànk yi nga xam ne foofu la mébét ñu dem fa. maa ngi ñaan eh, yàlla. Mhm. rabbal alamin amiin su boobaa nag xanaa ñu digleen dox daje incha allahu taala ba beneen. Euh, alxames ci waxtu wi euleuk comme ni ngeen ko xamé ci lañ ko dé repeat ci aljuma ji euh, seen mbokk al oustaz Ousmane mohammed Dia mo don taqdim programme bi ki len ko don defal di suñu wayjur professeur docteur Omar Dia alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh jërë ngeen jëf allahu akbar muhammad rasulullah